asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk téléspectateur u Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di la ñaanal jàmm di ko saaku ci yéen waa tey nag fi ma toog nii moom defe naa ne xulle fi moom min naa ko saal bi ma toog moom añe naa fi reere naa fi ndékkee naa fi macha allah fan la zone A Kër Kane Ibrahima fay Beuz Beuz moom defe naa kenn du ko présenté yi ndax actuellement macha allah ñëpp xam nañ kan mooy Beuz dama koy souhaiter rek happy birthday to you ndax yaakaar naa démb le 29 décembre doon fêté Beuz na fan yu gudd wér gi gën a yokku xam nga mu amee taxawaayu mag ñi waaye tamit di ko jaale waat suñu papa di papaam di wéy juróom bi fi génne bu yàggul yàlla na ko yàlla xare aljana bés maa ngi lay nuyu di la maa ngi lay fay bu baax Babacar di nuyu internet yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan à travers Equivox TV vraiment di rafetlu kàddu yi itam macha allah di wax yàlla yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp macha allah jërëjëf. parce que olof da koy wax wax waxaat waxi maanaam wax waxaat du bëri wax mais leeral ay wax la rek te dam koy faral di wax xëy na euh, nit ñi dinañ ko jàppale nen mais loolu moo am. dëgg la yàlla bëgg parce que bu ñu xamee Babacar rek grâce à Buzz la à travers Lutte TV te defe naa loolu wax dëgg yàlla maa ngi koy wax fu ma tool te damay ñaan yàlla di ko gën di mën a wax parce que fierté la ci man ci loolu euh, mu mel ni bu yàggul am na loo xam ne xew na fi muy góor gi yàlla jël na ko ñu koy ñaanal yàlla njéggal ak yéen ma ne mag bépp julli bi tëdd ci suuf loolu bës bi mu amee en tant que jeune tamit vraiment ci koo xam ne jege nañ ne la trop ñun ñu xamoon ko mm. loolu waa métti woon na métti métti ndax nit la koo xamante ne woon comme ni nga ko waxee ku jege woon la xamante ne lépp lu ma doon def da ci doon dugal xalaatam te macha allah dama doon wax ni moo doon zéro faute ah daawul woon juum saa loo waxee benn affaire boo demee ba ci biir da nga koy gis donc bëri na loo xamante ne dal di doon conseil gën la xam àdduna gën la maîtriser àdduna donc mbir moom bu amee moom doo def lu dul sant yàlla te xam ni suñu borom euh, moo ñu ko gën a soxla moo tax mu jël ko donc dañuy def lu dul sant yàlla et dans les activités ko ñaanal loolu rek moo ci am. am na solo mu mel ni bi mu amee tamit defe naa fan yooyu yëpp fii maanaam zone A yëpp dafa fees dell même bi ñu koy jébali boromam. Mm. mondu làmb ak maanaam euh, nit ñi kenn desul loolu tamit mu mel ni moom am na lu mu liggéey par rapport ak nit ñi paa bi boo ñu doon tënkal ci moom moo doon kan. waa paa bi boo xoolee moom macha allah c'est quelqu'un qui a été inspecteur des impôts carrière yëpp daanaka impôt et domaine la ko defee ñëpp xam Euh, Papa Ndiouk ñëpp xam neen tur boobu noonu au niveau des impôts et domaines def fa parcours am euh, gravir fa ay échelons jaar ENAM ba génn euh, vraiment nekk inspecteur principal des impôts ba liggéeye fa ba retraité donc nekk expert fiscal itam di continuer liggéeyam vraiment nekk taaw ci famille wam itam uuf ay rakkam uuf ay mbokkam uuf ay doomam te moom moom la famille mm-hmm. c'était vraiment dans le sens large du terme woon euh, juste euh, papa yaay doom ak wala frère et sœur moom ay cousin cousine yëpp donc nit koo xamante ne da ngay yaru ci kanamam mu am ay valeurs yooyu c'est normal tey jii euh, bu bu fi jógee rek faaw mu fe nit ñi bëri fi. parce que tamit nit koo xamante ne dafa dafa dafa njabootam dafa njabootoon trop trop trop c'est normal donc nit ñi ñëw en masse jaare si ko macha allah mais loolu yëpp dolli sant yàlla yaakaar naa ni fu mu tegoon tànkam bu ñu fa tegee suñu tànk rek incha allah du ñu jum. yàlla na yàlla def ñu tànk yow itam macha allah defe naa laf cat rek gudd fan lañ lay ñaanal ko wér. huis clos nañ ko jéem a xalaat pour jéem ko def mu mel ni la nga doon wax da ko waxoon nit ñi naan manta ne ñu da dem di dem di dem ba tey mu mel ni affaire daf la xaw a bëgg jox dëgg. waaw parce que xam nga dans la vie ma tooñ lu tuuti quoi fa ma jëlee woon da nga transhumant ci waaw waaw waaw gis nga ci diggante bi waa transhumant xam nga mantam damay dem rek <laughs> teg maa yeew buum nag macha allah macha allah sant sant sant yàlla di la ñaanal di profiter ci occasion pour ñaanal la liggéey bu bees bi nga sumb keroog maa ngi woo eh, sa waa ji kilifa gi fi nga nekk ma koy tooñ ma ne ko temps yi moom saf ngeen sàpp ci internet bi waaw loolu wax naa ko ko ma ne ko temps moom saf ngeen sàpp ci tendance YouTube yi loolu mooy wane ni Babacar fait du très beau travail aussi Cheikh Omar waaw ah, macha allah bi fi nekkoon euh, je pense mu ngi ci Equivox ba léegi. Mm. di ko di ko encourager parce que Cheikh Omar aussi faisait du très bon travail depuis le début. Mm. mais dañuy wax ni que mbooloo mooy doole mm. tey di nit boo xamante vraiment avec toutes les qualités que Babacar a bu ñëwee ci benn presse normale presse boobu vraiment gën a yëkkati ko. Mm-hmm. donc di leen féliciter Equivox ci loolu bu baax a baax ñu donc boo gisee waxtaan bu ñu sekkoon man ak yow honnêtement bi may wax huis clos boobu c'était même pas ko wax noonu rek pour nit ñi bàyyi ci xel parce que li ma bëgg wax mooy ici au Sénégal du ñu am plan B dañuy am toujours plan A mais plan B duñ ko sóoraale plan A boo ko amee da ngay naan lii bu marché wulee wala lii bu antuwulee lan lay def ji ëllëg mais tey ji yow ñu ngi woon ci période pandémie boo xamante ni gisuñu virus xam gisuñu plutôt euh, vaccin xamuñu fu ñu jëm ak moom xamuñ ndax lii day continuer wala du continuer xamuñu ndax période de chaleur lay wàññeeku wala période de chaleur lay yokk ak yu mel noonu sénégalais yi daal ñu doon wax ah ren daal combat amul mais solution koo ci wax mu ne la non du ma tëgg ci ci ci nit ñi bu ñu amulee nit parce que damay perte mais loolu àdduna du noonu da ngeen di toog ngeen toog xalaat saytu nekk ñun kat fu mu toll nii làmb ji euh, toll nañ situation boo xamante ne am na feebar bu fi am buy bañ ay dajaloo donc tey ji bu ñu bañaloo bu ñu bañee bu ñu bañalee dajaloo ci stade bi yan solution la ñu war a mun a trouver lan jéego yi la ñu war a mun def pour que tey ji ñu continuer di pratiquer suñu ay su art di pratiquer suñu sport bu la ci dara ndax Babacar ñaata site internet ñoo tëj ci Covid bi. waaw man xam naa ci ay chaîne YouTube yu bëri yu doon dox yoo xamante ne doxatul hmm. ah, am na ñu bëri fu mu toll nii ngor rek la ñuy demee mais xaalis duggatul waxuma sax waxu ñëwaguma ci mbëri presse bi laay commencé hmm. mais presse bu doon gagné énormément d'argent ci période làmb yi mais tey ji presse boobu c'est une presse boo xamante ni gisatul boppam ci liggéey bi hmm. ba pare nga jóge ci loolu managers yi amatuñu 10 pour cent promoteurs yi amatuñu bénéfice coolee fi ne rek seen ay activité lañ nekk mais lu leen làmb doon may mayeetu leen ko communicateur traditionnel yu doon jëriñu ci làmb jëriñootuñu euh, journalistes yu nekk ci télévision yeeg ci rajo yi fu mu toll nii seen affaire yi yàqu na tey ji mercato bi gis nga nu mu doon doxee ci yéen presse bi yéen boo xoolee mercato bi ren yënguwul torop <laughs> yënguwul torop mel yow laa gis nga déplacé wu sinon est-ce que am na benn presse bu ñeme engagé benn journaliste spécialisé sax donc ça veut dire que am na ay problèmes yu am foofu léegi nag le principal problème ce sont les écuries ñu fa nekk mooy les entraîneurs de lutte ak les lutteurs ñoom ñëpp fu mu toll nii daanaka euh, lu yàlla xam doy na mbër yi nga xamante ni ñoo doon bëri ci mbappa ji am na mbër yu bëri lu mu gàtt gàtt gàtt ci at bi dinañ ci gagné benn un million bu ñuy gagné fenn wala benn 2 3 millions ci at bi. mu garantir leen seen salaire durant toute l' mbër bi nga xamante ne mu ngi doon bëri am combat ñu fay ko ci un million mais kooku da sant yàlla dugal xaalis boobu noonu ci benn business bu koy jural dara ëllëg si biir donc loolu yëpp fu mu toll nii amatul donc nag mu ñu continuer naan bu public amulee duñ tëgg il faut ñu toog xalaat ay système yoo xamante ne wax dëgg yàlla dinañu mën a permettre ñu tëgg euh, feebar bi nekk fi ñàkk fee nekk ndax loolu moo ci àdduna fépp am na solo <clears throat> loolu nga am na solo mais est-ce que tey lool nga xalaatoon ba tey ñu mel ni fa la ñu jëm parce que ni ñu déggee communication bi jàll fan yi ci huis clos la ñu jëm mais est-ce que bu ñu defee huis clos est-ce que tey lu mel ni lamb simple parce que waa lamb simple liir naa leen tey ci record ñoom bañ nañu ne nañ loolu mënta ne parce que lamb simple est-ce que mën nañ ko def huis clos nit booy bañ da ngay andi solution nit booy bañ da ngay andi solution munoo ne bañ naa rek te andiw mu solution ñoom yan solution la ñu proposé waa lamb simple. ah waaw man dama leen liiran ñoom nañ wik la moom bu amee mooy ça veut dire que lamb simple day day dee. waa léegi nag tey jii lamb ñu ñëpp ay amateur lañu. te en matière de santé il n'y a pas de négociation l'État a été clair par rapport à ça tey jii la santé moom mooy seen kii man nag je dis pas que je suis d'accord avec l'État ou pas d'accord waxuma <laughs> ay ñu bañ a dugal ay nit non dugguma ci débat boobu noonu man ku ma laajoon sama xalaat ci débat boobu peut-être am naa beneen xalaat bu uteeg huis clos mais nag dama ne la État moom bu ne xasee ba ne huis clos tey làmb simple nañ toog fexe adapté wu te lan moo tere lamb simple moo gën a yomb huis clos sax pour mën ko lutte avec frappe. bés na lu mën a nekkee. lamb simple la gën a yomb huis clos. noo koy def non mais lamb lutte avec frappe budget bi ñaata la. ah des fois mu romb lutte avec lutte simple bi de moom. Ah. budget bi day romb foofu lutte simple amul sax comparé. Ah. ko euh, simple tey da ngay mise mise un million la ñuy teg Adrien Senghor wala deux millions la ñuy teg Adrien Senghor tey ji boo tegoon un million Adrien Senghor nga am sa benn parrain bu baax wëlbatiku. nga teg un bon système boo xamante ne da ngay proposer ay gala de lutte simple yu bëree bëri te ñëpp ñuy wax huis clos fu mu toll ni pay per view lañ koy méngale nga boole ci léegi nag si amateur lutte simple yu nekk ci diaspora yëpp nga defal leen système d'abonnement pay per view mais loolu dara gënu ko fu mu toll nii lutte simple moo gën a mun a yomb organiser à huis clos qu'autre chose. Mm. dégg nañ ko mel ni Aziz Ndiaye moom moom ci côté la mu mën a jàppale sponsorisé ak yooyu na pare na pour jàppale Gaston yow it est-ce que tey pare nga wala am na ñu lay contacter pour wàllum pay-per-view boobu pour journée yi bu fekkente ne valide nañ ni huis clos bi day am ba ñu war ko tëgg. yaa ngi soog a dugg ci sama domaine nag li ma doon wax sànq yëpp daanaka bëri wax la rek loolu sama xalaatu bopp la en tant que amateur <laughs> mais léegi nag li nga ma laaj nii moom mooy sama liggéey mooy sama domaine mm-hmm. qu'informaticien en tant que directeur de société bi nga xamante ni mu ngi tudd Buzz Pro man nag newul maa ci ëpp xam-xam mhm. ñu ci nekk ci ginnaaw yàlla mi ñu tiim ñoom ëpp xam-xam fuuf mhm. yoo xam nga ci dara <laughs> am nga ñi may liggéeyal ñoo xamante ne ay kàngam lañu donc man peut-être maa ngi waxtaan ak ñoom ñuy coordonné ak yooyu mais am na ci ñoo xamante ne ay boroom xam-xam lañ macha allah mhm. pay-per-view mi nag ñu dox ci ay jéego yu bare baree baree pay-per-view boo xoolee ñu ngi ko commencé en mars 2018 ñu ngi ko commencé woon ci Balla Gaye 2 Gris Bordeaux ci coono bu ne mu nekkoon une première mhm. nekk événement boo xamante ne ça a été très difficile parce que techniquement gis nañ ni que bu ñu demee ba ci jour ba am nañ ci ay difficultés yu bari mhm. ñu demaat ci Balla Gaye 2 Modou Lô mhm. moo nekkoon deuxième événement pay-per-view bi janvier 2019 daanaka dix mois après premier combat ba ñu gis ni que boobu erreur technique yu bëri yu ñu amoon résoudre nañ ko benn erreur technique moo ca feeñaatoon mooy diggante bu nit ñi di jëndee ay code donc nit ñu jëndoon joxe seen xaalis te jotuñu code waaye pour wane ni système bu fiable la yàlla mu ñu suturaal événement boobu jeex ñu recensé ñëpp ñi nga xamante ne seen xaalis encaisse nañ ko te jotuñu kat ñu defal leen remboursement bu ñu jógee ci loolu. ñu ne nag pay per view nag mënuñu nag def deux événements mu am ay quelques couacs ñuy def continuer di am ay couacs mm-hmm. ci la ñu signé ak Luc Nicolaï def Gris 2 ak Reug Reug mm-hmm. yàlla suturaal ñu mu nekk benn événement boo xam ne très bien réussi déggoo ci wax déggoo ci dara mm-hmm. ñu jógewaat ci loolu signé waat ak Baye Ndiaye liggéey ci Lac de Guiers 2 Boy Niang toujours en pay per view ñu amaat ci di résultats exceptionnels déggoo ci benn problème ñu jógaat encore signé waat ci Goro Sock Tyson 2 waaw Fallou Ndiaye mhm. góor soog Tyson de mu boole kook Franc ak euh, euh, Nguer doomu dàngu euh, feu rouge boole waale ci combat bi avot Jokkel Mama Lamine boole woon ci bébé Bismi ak Cheikh Cambérène suma juumul mu nekkoon galaa bu neex kon ku ñu wax ni que tey jii pay pour view pour combat yu mag yi kese la yaa ngi juum dugg nañ ci combat yu ndaw yi ba def benn combat bu neex ak fàllu Ndiaye macha allah ñu génn ci kenn amu ci erreur technique bi nga ciy noté le lendemain waa OK Africa nga xamante ni Moustapha Diop moo ko jiite tëggoon le combat Modou Lo Eumeu Sène le lendemain ñoom ñu waroon dem ak seen plateforme. mais ñun ñu waxoon nañ ngeen moytu erreur technique yu bari yu waxoon nañ leen ko ne leen ah yéen kat bu ngeen échoué pay per view mooy échoué parce que nit ñi duñ def différence entre Buzz Pro keneen Buzz Pro moo fi def cinq événements pay per view mais yéen bu ngeen échoué suba ñëpp dañu ne pay per view baaxul te kat ñun gis nañ ngeen am erreur technique yii donc ci jour événement bi la ñu ñoom ñu jox ñu événement bi ñu ñu def ko au niveau international jaayee ko ci seen affiche point com mooy suñu plateforme et wax dëgg yàlla yàlla defaraat ñu ci sutura combat boo xamante ne jël nañ ko ci suba mun koo def ci ngoon kon Babacar boo mënee fu mu toll nii ndax gaa yi bu ñu signé ay combat ndax ñun mun nañ koo def fi ak ñaari weer ñetti weer xam nga ni loolu yomb na ku signé combat tey tey tey ci suba def ko ci ngoon kon xam nga ni pare nga fu mu toll nii pour ànd ak promoteurs yi liggéey ci seen combat yi war a ñëw te yemuñu foofu noonu bu ñu jógee ci loolu jamono jii ñu génn génn neen làmb ji def suñu septième événement pay per view ñu ngi ko defee ci défilé de mode bu Adama Paris Dakar Fashion Week mu dem ba ci gis ni que euh, moom ñu doon organiser ay défilé yëpp organiser wuñu ndax problème mu Covid bi gars yi interdit rassemblement yi mu dem ba ca àll ba Sindia organiser fa benn défilé am ne nag képp ko bëgg a seetaan Sénégal da euh, fay francs jënd ko seetaan défilé bi ba pare loolu sax dañuy ubbil ay buntu au niveau international international ñi nga xamante ne ñoom seen xaalis daal woon dem ci événement bi ñoom léegi dañu am possibilité contribuer ci événement bi pour mun ko seetaan donc mu nekkoon suñu septième événement pay-per-view mais Babacar boo gisee kon deux premiers événements pay-per-view ñu defoon am ci ay jafe-jafe romb nañ ko ba def yeneen cinq yoo xamante ne macha allah ah, kenn du ciy wax dara mhm. léegi cinq événement yooyu ñu def réussir ko mhm. c'est pas que euh, tey jii ñun dañ ci dem ñun kese ay kilifa ànd ak ceeg ay sociétés yu mag ànd ceeg entreprise yu mag a mag mhm. parce que xam nga ni tey jii pay-per-view boo ko déggee day am moyen de paiement bu dëgër day am internet bu dëgër day am aussi ay logiciel ay informaticiens yu dëgër ci bokk donc loolu étape bu ndaw boobu rek ci pay per view du caaxaan. dafa jafe réussir dafa jafe réussir étape bu anti tey indil ma ku la neex fii nii Sénégal ci ñuy wax ni ñu ngi ñuy concurrencer ñu tegal système anti amul kenn ku ko ci am. ay milliers et des milliers de sénégalais yu nekk ci diaspora bi yoo xamante ne dañu jël seen carte bancaire wóolu Buzz pour ñëw fay ci site Buzz pour ak seen carte bancaire enregistré ko fa. événement bu amatee duñ fa nekk di remplir ay carte bancaire di remplir email ak mot de passe dañuy ñëw rek valider dañuy ñëw rek valider bu leen waxee ne danga nga bëgg fay ñu ne waaw benn code bu ndaw code de tracé boo am ñun mënuñ ci am accès hmm. parce que tamit sécurité la mooy nekk seen ginnaaw carte code de tracé boobu rek la leen waa ji di laajaat mu ñu dugal ko rek mu ubbeeku donc tey Buzz Pro dafa liggéey ba pare pour am ay sénégalais yu bari ci diaspora te sénégalais yooyu noonu dañu miin système bu Pro ba pare boo leen bëggee indilaat beneen système hmm. la sax xool parce que ñoom am na nu ñu tàmm fayee te loolu jikk ji baabuñu leen pour ñu dugg ci loolu dañuy def beaucoup de campagne de publicité mm. ñaata yoon la ñu jël tafaage yi nga fekkee tafaage yi toog di wax bësal fii bësal bouton bi ni ngay dugale sa carte bancaire ni ngay dugalee sa email ni ngay dugalee sa mot de passe mm. ñaata yoon la ñu jël ñu mel ni ay ñoom DJ Boops mm-hmm. ñuy def ay publicité Malick Thiandoum mm. Bekaay Mbaye ñu lay wax fi ngay bës étape par étape ñu jënd publicité bu bëri boo xam da nga ko fay ñooñu pour ñooñu jël seen xam-xam jël seen wax jël seen kàddu dugal ko ci système bi ba Sénégalais yëpp wóolu système bi ba adhéré au système loolu nga bëgg a ñëw d'un seul coup nga bëgg a concurrencer Buzz Pro waxuma la ni mënul nekk mais dina jafe lool te loo musul def musoo ko def nee naa la ay kàngami informaticien ñu ngi ak ñun nekk suñu ginnaaw ñun mais bu ñu demee ba ci cëppaandaw ba premier jour ba ak deuxième jour ba gis neen lu doy waar ci pay per view fa la ñu jaaree nag maîtriser ko mais nag yaakaar naa Sénégal fu ñu toll ku ci am xam-xam na ñëw toog ak waxtaan ak ñun ñu xool ñu koy defaree mu gën a avancé mais boo bëggee dem je t'assure da ngay reprendre à zéro waaw ce n'est pas pour le bien de la lutte waaw ce n'est pas pour le bien de la lutte parce que làmb fu mu toll nii rassurer la ñu soxla ci pay per view bi mais pas kuy ñëw reprendre à zéro mm-hmm. am nañu ko fi essayé gis ngeen ni mujjantal ba dañu ñëw seet suñu mm-hmm. ba fi may waxee yow fi Sénégal kenn mosu fi def pay per view à part Buzz Pro te ñu ngi suñu septième événement am na solo mu mel ni kon loolu daal nañ ko dégg maanaam ah, maanaam mbooloo melentaan yi sax bu ñu mbooloo dañuy wat wee maanaam comme système bi ñëw na ku ci am xam-xam war ngeen mën a fréquenter ngeen waxtaan ci xool nu ngeen koy gën a protéger ba mu gën a kii léegi fi may jeexal ak yow parce que lu mel noonu en tant que jeune ngeen di ci réew mi ah, euh, loo xam ne tey defe naa kon état du Sénégal est-ce que yaak état bi am ngeen lu ngeen waxtaane ci lu jëm ci wàllum Pérou bi parce que pour ñu war la ci mën a dooleel euh, pour mu gën a mën a euh, kii daal waaw loolu lu ma la ci leeralal mooy ñun fu mu toll nii ñoo war a jàppale état ñun les jeunes man lu may ñaxtu parfois mooy ma dugg ci benn koñ wala kii ñu naan noo état jàppale wu ñoog ak yu mel noonu non nit ki da ngay dox ay jéego yoo xamante ne dañ la ciy fekk si man li ma gëm mooy fu mu toll nii ah nit ki yow li nga am da ngay jël à partir de li nga am nga am système yooyu créer avancer ci bu ko defee nguur gi mun a ñëw dooleel la. Mm-hmm. ndi kii kat am na lu muy jéem bàyyi ma dimbali ko jàppale ko. Babacar yow jékki-jékki woon ñëw ma woo la ci Lutte TV ne la kaay liggéey si <laughs> ni ma la xamee woon laa xame woon say morom mais nu mu demee damaa toog fi ma toog nga may yónnee revue de presse mais yow yaa toog jaay balaa doon toog di ko def ngay toog di revue de presse ma ne la fi nga toog dafa am bruit defeel nii defeel nale defeel nale waaw ma ne la waxal lii bul wax lii éviter lui éviter lee kii boo ko waxee lii day mer kii boo ko waxee lii day kontaan tegee ko nii mais boobu da nga jéem boo jéemee ñu dimbali la ci ba nga àgg niveau bi nga am ne gis benn booy bu toog ci bopp koñam yor benn cent franc jënd benn cigarette am ak benn café tubaam toog ne gars yi dimbali wuñu non man c'est pas ma logique mhm. man suñu logique man mooy ñun dañu toog nekk ay jeunes informaticiens ku ci nekk am sa liggéey man yow xam nga ni sama salaire laa doon jël di fayee ay salaire bu jë moom kay loolu nga daan fayee bu njëkk moom sama salaire sama salaire bureau laa doon jël nekk Canada di liggéey weer bu dee ma jël sama salaire sama booy daw di baali ji sama booy dow di sañse sañse yu rafet di jënd ay téléphones yu rafet man xam nga ni S7 laa yoroon bi ma jëndee iPhone yàggul waaw S7 baa ngi nii ba yàgg na fi bi la ñu sàcc jamono <laughs> kon bii mooy colère bi waaw bii mooy colère bi ñëwaat na comme sàcc nañ beneen bi bii ñëwaat na waaw mais mais mais mais pour te dire moom laa yor pendant des années sama booy jënd ay matériel yu cher di jënd ay MacBook yu cher man may nangu di jël ci sama salaire di ko fayee ay salaire dem ba nga xamante ni dama taxal pay per view nangoo jël ci sama salaire mag sama gaay yu nga xamante ni ñoo bokkoon liggéey bi ñu ko ci nekk lépp li nga am nga jël suñu ay wéju jàppale ñu ku ci nekk jël li nga am lépp nga jël taxawal projet projet bi bi ñu ko taxawalee macha allah mu dem et même aujourd'hui tey jii c'est un message que je lance à tous ces jeunes sénégalais yaa li nga xamante ni peut-être bëgg nañ ku leen jàppale mhm. mais tey ji si tu une benn bonne idée si tu une très bonne idée man wax dëgg yàlla am na ay jeunes qui sont venus récemment me voir avec une très bonne idée en informatique benn plateforme bu exceptionnelle mm. mais dama ne non booy man faaw ma jàppale leen mm. même si je n'ai pas les moyens de financer votre projet je vais aller voir des gens parce que le mm. projet est intéressant lorsque tu as un projet intéressant wax dëgg yàlla ñii ñi dañuy sawar ci jàppale la maintenant nag c'est sûr que état war na nag teg ay jéego am ñoo xamante ne da jàppale parce que xel yi yemuñu am ñoo xamante ne peut-être seen xel motul mënuñoo xalaat yenn affaires yi am ñoo xamante ne sax am nañ xalaat mais salaire boobu ma am sax pour mun a financer amuñu ko mais man wax dëgg yàlla en ce ma me concerne comme amoon naa benn base bu ndaw togguma fii di ñaan état dama jël sama xaalis ak samay xaalisu gars yi ñu dajale jënd suñu ay ordinateur jënd suñu ay matériel financer avancer fay ay plateforme yooyu yëpp ñu avancé pour mun a teg suñu ay pay per mais léegi comme teg nañ à dem nañ à un haut niveau ba def ay preuve de cet événement fu mu toll nii nag c'est normal que nga wax ak état pour que léegi lépp ñu mun ko encadrer mun ko def mu gën a baax te ci loolu état dafa du da ngay tëb ne président Macky Sall c'est une erreur qu'on fait souvent président Macky Sall tëb ne Matar Ba non non moi je suis dans mais au lieu d'aller d'aller m'adresser euh, président du CNG laay seeti Bira Sène ne man kat voici projet et tout nii laa bëgg yéen ngeen jàppale ma man itam ma jàppale leen de façon là donc noonu moom laa gëm man mais man gëwuma toog fii di xaar ay ndimbalu état ak yooyu man wax dëgg yàlla ne fonctionne pas